Soxna Khady Seck. yaa ngi ree da nga may joxoon ba léegi ci ci man nga nekk naa. ah béjjën bi béjjën bi lii luy njëriñam. di ma wéttali. ku fi nekk dafa am ñeneen ñu fi nekk. ah di ma wéttali yaa ma laaj li fi ne ma ne ñoom kenn la wala moom kese la. ah ñu ngi may wéttali daal. instant bi fii ma toog ñu fi gaay. waaw waaw. am na luy sax li sax boobu ak nen la. ci lañ bokk. ci ah, na jeex ak jàmm kon am na luy sam de xaw ma lan la. xaaral ma gaaw yow comme da ngaa mën a seet tamit ku nekk bitim réew te ñëwul nag nooy xamee li ko dal. ah xaajawul mu ñëw. ajawul mu ñëw. ah ku ñu seetee gis dina ci yow. Mm. ñëw sangu si moom ñëw jël si garab loolu amatul fii de. boo mm-hmm. la boog ba xayta ñëwee boog la amatul. ah xayta daal noppal na lépp. am na noonu yoo xam ne ba temps yële ku gis nañ ci internet bi kenn ku jigéen ku amoon ci liggéeyam benn xeetu yokkute rek keneen ko mënu koo muñ sax rey ko. mu dee benn yoon muy tas maanaam xeetu soxor bi nga xam moo am Afrique xam nga capable na def la lu ne nag xeet boobu ku bëgg mucc ci noon yi tëleel duñ la mënal dara. mën naa ko ci nitu guddi nag. ak maa ay si xam nañ ma sax. Ah. Ah. fu ma dëkk ñu fekk ma fa pour yëkkati ma fa. Ah, mën naa ci ñoom bu baax a baax a baax fu ma nee ñu feneen. imagine toi naka ngay gisee góor nekk kilifa bu ne léegi jur doom di ko sàkku rab da koy def de. lii la la. ay bagage jàmbur bagage jàmbur fii moom waaw ay bagage xayta rek fi ne ba laal ma laal amul dansé ah ay bagage xayta daal fi ne déet waruma laal ah man de ñeme naa kaa laal yow boo ñemee rek laal d'accord ah, bàyyi na man du tooñ man du tooñ moom lay bi ku ko jëloon jox la vingt millions yu teew ak vingt millions looy jël lii ma gën a lii moo la gën a yàlla kenn xale bu réer mën nga ci dara ko waaw hmm. mën naa ci dara ñu jaamu yàlla ci benn biir am na benn xale boo xam ne que at presque xaw ma dix mois ngi nii mu réer sant Mbàkke àdduna bi yëpp di ko wër kenn xamul ci lu mu nekk kooku mbokk wala mën nga volonté wu feeñal ko. may tudd tur te yàgg naa kaa def ñi may seetaan ñi ngi may gis du benn du ñaar ma tudd tur. waaw doo joxe sa kër jàmbur. dee waa di fa ñëw nag moo tax dama ne la ragaluma loolu pour ma ne la diw. si biir ah, kër gi waaw loolu moo am. bu kooku weddee ma def sama mënin mu leer. mu waaw nga defal ko mandar. waaw ma def ko dara dal ko. mu leer amul weddi ci sëñ bi dama am utiliser seet diggal leen sarax yi baax ñu gis ko man sama sarax du fanaan sa foofu laa bëgg seetkat yi bari na nag waaye mënuñu wax sarax ah waaw ah te loolu yow nga def loolu ëpp ah dama koy def de ah waaw bul faale nga daal yow sa yoon daal dama koy def yaa ma ko laaj dama koy def damay noob góor bu bëgg a yeew jigéen ba ne ngoon da koy def jigéen bëgg a yeew góor ba dama koy def waaw am ñàkk moo ko indil problème te ñàkk ba dafa gëm xam-xam bu ñuul indi mbir ba nangu na borom këram ci neen yu mel noonu loo ci mën ko. mën naa ci dara. Hmm. yow am neen nga wala doom neen. tey mun naa am sama client. Hmm. bu nekk ak jëkkëram nekk si jaam nekk salaam. Hmm. jëkkëram bëgg a dugg ci leneen. bu mu ñëwee sant ma dëddale leen dama koy def. loolu bokk na ci mooy wujj. wujj bi noo ci def yaa ngi ci gën a taqee fa nga nekkoon nga nekk wala ngaa gën a. saf ci bu baax a baax baax a baax. kon daal ku bañ wujj. ku bañ wujj daal la ñëw. oyof lu baax la sa bopp lu baax la. am na jigéen ñooñu ñàkk nañ seen borom kër bëgg ci jotaat fu ne ñu ngi fay dugg di ñaanlu dama yaakaar ne bu ñu jëloon seen téléphone woo oyof baalu jégul tem jàmmam. jàppale ko ci bu ñàkkee xaalis nag moom. <laughs> <laughs> na liggéey na jabar yërëm la may na jabar moom. waaw est-ce ku ci xam benn ñu wax ma. li fi nekk moom macha allah bari na fëgguñu suñu dënn nag waxuñu nag ñeneen kenn mënul. Mm. waaye ñun daal. Mm. xam na ni lii doomu aadama yi soxla mm. ñu ngi ci. nañ yegg si rek ñu xool.